mbokk kon incha allah ñu ngi war a jël ay bi jëkk ci suuratu naxl suuratu naxl ataa amru llahi fala tastacjiluuhu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk ñi ngi wéy ci xéewal gu màgg gi suñu borom yàlla jagleel ñu ñuy xéewalu chahru ramadan doonte ne ni ay bis yu néew moom moo ci des loolu ñu war a góorgóorluwaat xam ne lu mën a doon rek suñ borom ma ngi ci gën a fonk la nga xam ne muy ak mu jëm ñu ngi noonu moo tax sax mu ne wal aqibatu lil muttaqin dafa mel ni Cheikh Ousmane am na benn tardement tuuti léegi ñu jël bind bi rek xëy na après bala ñoo jël beneen dana yegsi kon suñu boroom day wax fii aouzu billahi min ashaitan irrajim bismillahi irrahmani irrahim borom bi mu ne ata amrullah naam waaw kon est-ce que moom la non ata amrullah yegsi na dikki na mbiru yàlla fala tastacjiluuhu ngallaway bu leen ko yàkkamti subhanahu wa taala amma yushrikuun aka sell ca kawe ci liñ koy bokkaaleel yunazzilu almalaikata bi ruuxi min amri mooy wàcce malaaka ya ñuy wàcce ruux ca mooy alquran jamuy wàcce min amrihi mu nekk ci ay mbiram ala man yashaau min ibaadi moo koy wàcc ci kaw ku mu soob ci ay jaamam an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquun muy waare ne xam leen ne kenn yu yéewul ñu koy jaamu ku dul man ngalla way na ngeen ma ragal xalaqa alsamawati wal arda bilxaq moo bind asamaan yi ak suuf ci dëgg taala amma yushrikuun aka màgg ca kawe ci liñ koy bokkaaleel xalaqa al insaana min nutfa moo bind doomu aadama jële ko ci toq maniyu fa ida huwa xasimun mubin ci noonu rek mu wëlbati ko nekk ab daggasantekat bu tar ci ni muy daggasante wal anaama xalaqaha jur gi it muy xar ak béy nag ak giléem xalaqaha moo ko bind lakkum ñel leen lakkum fiha dif'un dana leen ci ñel loo xam ne dana leen di tàngal wa manafic dana leen ca ñeel lu ngeen di jëriñoo wa minha taakuluun ca ci jur googu it ngeen di lekki walakum fiha jamaalun dana leen ñeel ci jur googu ab taar xiina turixuun heure boo xamee ni nii yéen ngi leen di gatandu ñu jóge ca àll ba di ñëw ca ngoon wa xiina tasraxuun ak jamono ji ngeen leen di gëci mooy jiital leen ca suba ñuy jëm ca fa nga xam ne fa la ñuy nekk di war a fare ji bi ngi noonu mbokk julit kon lii mooy suuratu naxl boroom xam-xam yi tamit di ko firi suuratu niam muy saaru xéewal wi li yàlla wax ci saar bi ci ay xéewal waxu ko ci benn saar ci alquran te it yow mi fekke woon tafsir yi passé dégg nga ñuy wax ni suñu boroom aaya yi muy wàccee di wone kattanam ci mbindaafanam yi moo ëpp aaya yi muy wàcce di leen digal ay ibadat muy ay julli ak i koor ak yu mel ne moom mbokk yéefir yi dañu deñ di laaj yonent yi mata hada alwaadu in kuntum sadiqin bisu penc bisu penc allaxira allaxira allaxira kañ lay ñëw su dee wax ngeen dëgg suñu borom na leen allaxira kay ñëw na ba pare ñëw na ba pare ata amrullah te loolu mbokk lang yépp a koy waxee mi ngi mel ni rek tey bu naan ah koor gi de jeex na waaw koor gi de jeex na ba pare boo ko waxee ci mbooloo ñu am xel kenn du la wax da ngay fen ndax xam nañ lañ ci jublu mooy la ca des bëriwul ah koor gi da ñëw na ba pare ah ah kon de koor gi da ñëw na fekk koor gi des na sax 15 jours mais lañ ci jublu xam nañ ñu soreetul ko ñet suñu boroom maadaama bisu penc laa rayba fiihi chaque amul ne mi ngi ñëw moo tax mu ne ata ñëw na ñëw na ba pare ca dara mënu koo te ñëw kon nag bu leen ko yàkkamti doonte ne yàkkamti boobu suñu borom nee na lazina la yuminuuna bil axirati yastajiluuna minha lazina la yuminuuna biha wa lazina amanu mushfiquuna minha yéeféer moom ñaari baat ñett mu ne waaw alaxira kañ la alaxira waaye suñu borom mu ne jullit moom dafay ragal allaxira heure bu xelam ne yaru ci allaxira rek mu tiit bokk julit sunu xale yi di def ay bag ak ay maîtrise ak ay yooyu heure bu seen xel demee ci jour d'examen bi rek dafay am lu ñuy yëg mi ngi noonu examen mooy examen quel que soit ce niveau d'étude bu neexee yàlla nga échec loolu it moo tax ba julit dëgg it bu allah bu xelam demee ci allaxira rek loolu da ngay gis day daal di tiit borom doon bu nag subhanahu wa taala ne subhanahu wa taala ama yushrikun sell na kawe na ci li ko doomu aadama yi di bokkaaleel bokk doomu aadama yi suñ borom feeñu na leen ci ay mbir yoo xam ne nii ku ci amoon xel waruloo bokkaale waaye malheureusement contraire bu moo am suñ borom mu ne wama yuminu aksaruhum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi dañuy bokkaale bokkaale googee da ngay gis ne cheytaane mi ngi ko jëkk a jaarale ci nit ñu baax nit ñu baax ñu ngi noonu mooy wadd suwa yaxuus yauq wa nas ñoo jiitu woon yeneen ci yàlla noox di woo nit ñi di leen jàngal diine booba bokkaale amul bañ demee ba jeex dem seytaane feeñu xaw ma nuux ne leen kët ñii sëriñ si fi nekkoon di waaraate léegi nit ñi fàtte leen te présence bi ñu amoon ci nit ñi dafa amoon ci ñoom jeexital donte li wax ne dëgg wax ne dëgg mbokk réew mu la gën ay sëriñ ñoo la gën waaye cay Sénégal sëriñ soo xam ne ñee dabbee leen di daaneel ñee taxaw naan man àllaaxira fa yàlla ak yonent bu ñu nekkoon fit ca saamam laa jëm ñee leneen ñee leneen mbokk société boo xam ne ñu mel ni ñoo ñoo ko jiite fu ñu jëm bokk ab société la koy jëriñ mooy sëriñ su ragal yàlla xam tawxid duñu wax lu dul qaalallah duñ digal lu dul lu jëm ci yàlla dëddloo nit ñi àdduna dëddloo nit ñi ak noono dëddloo nit ñi teqale loolu la wadd soi yaxus yàqu nekk iblis na leen gis ngeen bu ñu fi jógee nit ñi fàtte leen tee ñu leen defal ay statut gaa yi fa nekkoon comme amuñu xam-xam d'accord ak moom ci loolu ñoo commencé leen defal statut te lañ commencé di jaamu ay doomu aadama cheytaan yi ah kii day bunt bu baax a ngi nii bunt boobu ca la jaar di réeral nit ñi ci ay jaamu yàlla réeral nit ñi ci ay jaamu yàlla ba yegg si ci ñu mujjoon ñëw yahud yi mu màggal oseyri ci ñoom ba ne leen doomu yàlla la ñëw ci nasaraan yi màggal isa ci ñoom tey jii nous sommes quatre vingt quinze ou quatre vingt dix sept pour cent des musulmans au Sénégal ñu may ñu feet ñun ñëpp ne tey feet feetu leen bu kenn liggéey am déet yi nga noonu tey ci tisbaar rek laa xool jàkk ji gis ñoo xam ne waruñu foo nekk heure bi ma laaj Babacar da ko Babacar la xew mu ne ma tey la ascension mu ne ko bisimilah jàmm yaa ngi dégg loolu mooy lan mooy chrétiens yi bañ demee ba créer ñu ne Isa ibn Maryam daaj nañ ko ca croix ba ci Pâques mooy Pâques bi ñu passé ñoom dañ ne biñ ko daajee ci croix bi léegi ñetti fan la fa def dékki ndekkee dem 40 jours après muy ascension jouru tey bi ca la nag yéeg kaw asamaan na am yéeg kaw asamaan yéeg boobu islam nangu na ko waaye du ne ko chrétiens yi gëmee ne dañ koo rey mu dekki doo ko yéeg fii ak 10 jours ñu ngi màggal Pentecôte lan mooy Pentecôte ñu ne Isa bu mu yéegee ci kaw après dafa wëlbatiku la ñuy tuddee l'esprit saint dafa wëlbatikuwaat ñëw daal di nag dugg ci la nga xam ne mooy apôtres yi mooy ñim bàyyi woon ay saxaabam ci gàttal loolee moom la ñu màggal Pentecôte moo tax ngeen di gis communion yi ñuy def pour communier taalibe yi église bi ak li ñuy tuddee l'esprit saint lan mooy l'esprit saint ci ñoom ñu ne esprit saint Isa la yàlla la mi ngi noonu mit la ku masaan seetaan Ahmed Didat ci ni mu daan jàppanteeg seen kilifa labbe yi rawatina kooku di Jimmy Sugar mun li nga xam ne mooy église chrétienne ñi ngi basé sur la trinité trinité boobu mooy lan mooy dañ naan yàlla le Père Jésus le Fils ak le Saint-Esprit mais trois yi benn la mit la boo xam ne c'est trois qui font un amin di daan leen waaw yéen yéen a ngi ne père fils saint esprit ana ban langue ci àdduna moo am un un un égal un mënta nekk c'est pas possible un un un égal trois kay loolee kon mbokk mi ngi noonu waaye ay njaxas la yoo xam ne dañ koy dugal ci bopp ñi nga xam ne ni ñooy seeni taalibe loolu mbokk ñu créé boo ñëwee ci ñu nit islam dem nañ ba topp leen comme na ko yonente bi alei salaam waxee ana fi ñaata nit tey ñu naan sëñ diw yàlla la sama nopp yi may na ma ci rajo Sénégal ñu ne benn sëñ diw kilifa gu mag taalibeem bi gën a mag dafa ñëw tiim ko naan ko yaa yàlla yaa yàlla fekk benn naar bu jógee Mauritanie naar bi na ko waaw yaa cheikh kii li muy wax ëpp na di mu ne ko ëpp na mu ne waaw mu ne ko ah waaw wax nga dëgg de du ma yàlla de waaye nag eh indi leen ma boolum ndox ñu ne ko boolu ndox mu ne indil ma donj suukar ñu ne ko donj suukar mu ne naar bi jaxaseel naar bi jaxaseel par mu ne ko teqale waaw li koy kenn mënu leen teqale mu ne ko nag maag yàlla nii la ñu mel mbokk lii mooy li chrétiens yi wax rek ak synthèse bi yàlla ak isa benn la c'est le yàlla mooy bàyyi subhanallah ama yaqulun isa mooy doom subhanallah ama yaqulun Saint-Esprit bi nag mooy ki nga xam ne moo leen relier loolee mbokk mooy shirku akbar boo xam ne cheytaane dugal na ko ci doomu aadama yi malheureusement ñun Sénégal yi quatre-vingt-quinze pour cent feetaloon nañu seen caaxaan yooyu fii ak dix jours Pentecôte ñu feetaloo waat nañu seen caaxaan loolu tëj suñu école yi may suñu doom yi feet di musiba boo xam ne nii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk bokkaale googu seytaane ba mu jaari ci nit ñu baax ñi mujj naa dem ba jaamuloo doomu aadama lu ne loo xalaat rek yàlla bindoon ko ngir doomu aadama doomu aadama nga koy jaamu yàlla nee na maa bind jant pour yéen am nañu koy jaamu weer pour yéen am nañu koy jaamu montagne yi fleuve yi gis nga indo yu dof yi fleuve yi nangam nangam boo demoon Thaïlande sax golo la ñuy jaamu Thaïlande la ëpp ñoom ay golo la ñuy jaamu golo doomu aadama mu ngi noonu sunu borom yàlla nag mu ne kon taala amma yushrikun wax naa leen tafsir bi passé borom xam-xam yi nee nañ kii bokkaale yàlla ak yonent ak kii bokkaale yàlla akub xaj ñoom ñaar ñoo yem ca yàlla taala amma yushrikun borom boobu nag mu ne mooy wàcce malaaka yi yunazzilu al malaika bi ruux malaaka yooyu ka ci gën a tedd mooy jibril moo wàcce téere yu mag yépp téere bi gën a mag ci téere yi mooy alquran moom la borom bi waxoon na ko kazalika awhayna ilayka ruuxan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الروح مي القرآن دوم آدم نيار لن ني دندو موي كي أم روح كي أم الروح بكا ميدسين بي خولي با خامني دينا سي فيني سول رك مو تي ديس نونيت لي نيت ني مل سي باطل julit ñi gëm alquran ñooñu ñoo am wax ñooy dund yéeféer yi gëmul alquran amwaat moo tax borom bu ne amwaatun xayru axyaain wa ma yashuruna ayyaana yubaasun yéeféer yi ay amwaat lañu amma julit ñi ñoom ñuy dund ñooy dund ak ruuxul quran mu leen di xamal seen digganteeg seen borom seen digganteeg seen moroom lu ñu war a jëflante seen bopp loolu nag ci ndigalu yàlla lay wàcce moo koy wàcce ci ku ko neex ci ay jaamam ka ci mujj woon mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo koy wàcce ci moom ngir moom mu leeralal ko nit ñi suñu borom yàlla su ko neexoon ñun ñépp lay waxal waaye loolu neexu ko bi ko neex moo tànn kenn ci ñun wax ak moom ne ko nag li ma la wax leeralal ko nit ñi jot ci li ko leeral ko li tubayyina linnaas maa nuzila ilayhim lan moo nekkoon mission principale mboolem yonent mbokk yonent li ko fi indi mooy mu jàngal nit ñi xupp leen ci ne laa ilaha illa illa ana demal ne nit ñi yeyoo kenn yeyul ñu ko jaamu ku dul man yàlla fattaquun gannaaw ba na ngeen ma ragal looloo tax ba mbokk mi ngi noonu loolu moo tax yonent yi ñëw ku wuyu yonent yàlla ci loolu rek la shakka ne lu mu yàgg yàgg àjjana nga jëm ak tolof tolof yu la mën a dikkal ci njaaloo yaag sàcc yaag agression yaag nangam man ngaa jaar ci ay coono de waaye maadaama tawxid moom deeyaale nga ko àddina nga jëm amma ci deeyaalewul la ilaha illallah ne fekkoon moo gën ci jaamu yàlla yi ci mbiru àdduna ak ci mboolem aj nakkaag koor ak lu mu mën a doon moo ca raw ñëpp waaye nag bi muy dee shirk la deeyaale ku mel noonu yàlla araamal na ci mu aljanna loolu kon moo tax borom bi ne ni nañ ma ragal ca mooy taxaw ci samay ndigal bàyyi sama tere lan moo tax yàlla boobu wone ne mooy laa ilaha illa allah mu commencé nag ci ay xéewalam mu ne moo leen bindal asamaan ak suuf ci dëgg mbokk yàlla bind asamaan ak la ci nekk ak suuf la ci nekk mi ngi ko bind ci dëgg bind leen ci ñu taxaw ci ay ndigalam mu woo leen itiyaa taw an aw karha qaala qaalata atayna tain dikkal leen ma ngeen ngeen jaamu ma mu neex leen ak mu naqari leen ñu ne ko ñun ñu ngi lay wammatul yàlla tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lenn lu nekk ci kaw asamaan yi ci biddiw yi ci jant ci weer ci nuage yi ci lu mën a doon lu nekk ci kaw suuf montagne yeeg garab yi lépp lu dul ñi ngi sabbal yàlla guddeeg bëccëg duñ ko dagg ñi ngi sabbal yàlla guddeeg bëccëg duñ ko dagg ñi nga topp ndigal yàlla duñ ko moy yàlla da leen ne bind bil xaq ci dëgg looloo tax suñu borom ni kaawee na ci liñ koy bokkaaleel yow miy sujjuutal jant bi jant bi moom mi ngi sujjuutal yàlla di sabal yàlla yow miy sujjuutal weer wi naka noonu yow miy sujjuutal lu mu mën a doon boo demee dof yi nekk ind ay nag la ñuy jaamu lu ëpp ci ñoom nag la ñuy jaamu fekk nag moom mi ngi sabal yàlla guddeeg bëccëg nag moom mi ngi julli yàlla mi ngi sabal yàlla in kullun illa alimata salaatuhu wa tasbiha amul benn bàyyi mu benn picc lu dul yàlla xamal na ko nu muy julli xamal na ko nu muy sabbaal moo tax mu ne taala am mushrikuun mu doog a ñëw nag ci doomu aadama bokk doomu aadama doyoon na rek nga jaamu sa borom bañ koo bokkaale ak dara bu dee borom xel nga mu ne yàlla mu ne maa la binde min nutfa nutfa wolof li mu xam rek mooy toq la gën a tuuti waaye nutfa bokk da ngay gis mënu yi la boo xam ne bi yàlla demee ba may doomu aadama cosaan cosaanam nu mu demee ndox mi doomu aadama di génne te yàlla wax ko ci alquran lu bëri maa in daafiq maa in tumna ila axiri ndox moomee ndekete lu jege presque téeméeri million ay doomu aadama ñi ngi ci biir ndox moom yàlla dëxi góor li muy génne ci ndox ci benn génne la ci nekk dana jege téeméeri million doomu aadama suñu borom bàyyi leen nag ñu am yoon bu ñuy jaar ba fekk lay génne ci soxna sa su ko defee course boobu ñuy def bu ñu demee ba yegg kenn rek mooy dugg ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent kenn nay dugg rek nen bi tëjuwaat léegi nag nag ci kàttanu yàlla ñaar dugg ñetti dugg ñeent juróom juróom benn juróom ñaar ba juróom ñett sax doomu aadama mën na ko ëmb loolee kon mooy nutfa bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala bind doomu aadama jóge fa nag ci alaqa muduxa di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu xëy xëy nag nekk nag ab dàggasantekat boo xam ne nii bu tar la borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu lay wax ci ni nit ki xalaat man day yàlla ba may bind sama biiru yaay boobu suñ diw fu mu ne bi ma yàlla lay def mu doxa bi ma yàlla yi may loxoo ki tànk kan moo ko ci jàppale kenn kon su ma nee cëpp samay tànk ci kaw suuf yàlla màggal ma ba ma toll ne saa bàyyi danaa doyloo yàlla moomu yàlla moomu kese lay sant yàlla moomu kese lay yaakaar yàlla moomu kese lay ragal borom bi nag daa di ne al anam it moo ko bind al anam mbokk mooy xiiwal gi yàlla defal doomu aadama gileem nag xar béy partout dans le monde presque am na fa nga mën a am géttu gileem ñu déggal la bu ñu xëyee fari dem lu sori tekki ba suur ngoon ñu ñëw sa biir kër nga jàpp ratt bu la neexee jël jaay bu la neexee dekk ren bi ca troupe bi ca gétt gi du du révolté wu am mil nag bu ñu xëyee nga bàyyi leen ñu dem nga boole leen golo gu ndaw sax bu la neexee ñu dem àll ba bu ngoon jotee ñuy nibbisil seen bopp ñëw nga jël ratt mi ren bi bu la neexee jaay du ñu révolté noonu la xar yemel noonu la bëy yemel borom bi mu ne defal naa leen ko ngeen di ci am dif mooy der yi ngeen di ci mën a solu di ci mën a solu lu leen di protéger ci sedd bi may leen ci njëriñ yu bari ci yàpp baag comme na ko yàlla waxe ci bopp saar ba ca digg saar ba aw baari a ashari a ila axiri borom bi it mu ne ci ngeen di lekk ci rawatina la nga xamee ni nii mooy tabaski ñeenti yooyu rek la lislaam maye ñu tabaskee ko mooy xar bëy nag giléem muy am am yi rek la ñuy tabaskee amma bu dee lekk moom li ñu yàlla may ñu mën ko lekk kenn xamul ñaata million d'espèces la borom bi it mu ne da ngeen ci am taar loo xam ne nii laaj ko suñu mbokki pël yi taar boo xam ni bàyyi ngeen jur gi ñu dem ba ngoon nag ngeen leen di gàttandu ngeen leen di gàttandu ñuy ñëw lekk nañ ba suur loolee taar boo xam ne ñi xam jur dëgg-dëgg moo leen dàqal lu ñu mën a am ci kaw suuf borom bi nag doog a wax bu ngeen leen di jiital ñuy ñuy dem di farij waaye comme gàttandu gi moo ëpp xéewal moo tax suñu borom jiital gàttandu gi doog a wax wax nag bi ngeen bi ngeen leen di bàyyi ñu def loolu muy wane alquran mbokk yàlla moo koy wax ndax bu ñu nit day wax danaan da ngeen ci am taar bu ngeen leen di yóbbu ñuy xëy ak bu ngeen leen di teeru waaye comme teeru gi ëpp xéewal yàlla jëkk a teeru gi loolu mi ngi noonu léegi nag kon Cheikh Ousmane dañ ko lebaloon daf ñuy fay bor bu jëkk bi dolli ci beneen incha allah waaw
بسم الله الرحمن الرحيم أتى
والخيل والبنوان والحمير
barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum naam waaw kon suñu borom mu ne wa taxmilu asqaalakum mooy bàyyuma yooyu ñu leen may daan gàddu seen bagage yu diis ya ila baladin lam takunu baalixiihi yóbbu leen ci dëkk boo xam ne nekku leen woon di ko mën a jot illa bi shiqil anfus xanaa lu dul ci coono bakkan bu tar inna rabbakum la rauf seen borom yàlla ku leen ñeewante la arrahim seen borom yàlla ku leen yërëm la di ñeewante cam yërmaande wal xayla moo leen tàggatal fas ya wal bihaal tàggatal leen la juddoo ca diggante fas ak mbaam muy baxla ya wal xamiir moo leen tàggatal mbaam ya li tarkabuha loolu ngiree ngeen koy war wa zinatan ak di ka taaroo wa yaxluqu ma la taalamuun mi ngi bindit loo xam ne xamu leen ko wa ala allahi qasdu sabil ma nga nekk jëm ca yàlla la gën a digg doomu ci yoon wa minha jairun am na ca nag yoon wu jeng walaw shaa la hadakum ajmain su ko neexoon mu jubal leen mboole seen wa huwa alladi anzala min alsamaai maa mooy ki nga xam ne moo wàccee jële kaw asamaan am ndox lakum minhu sharab dana leen ci ndox moomu lu ngeen di naan wa minhu shajarun fihi tusimun dana leen ci ñeelit ay garab yoo xam ne da ngeen ci xonte seeni jur yumbitu lakum bihi zara ci ndax moomu dana leen ci génneel am mbay wa zaytuna wa naxiil dana leen ci génne lit lii di ay olive génne leen ci ay tàndarama wal anaab génne leen ci ay raisin wa min kulli samarat génne leen ci ci bépp façon meññeent inna fi dalika la aaya nekk na ci lii day kawtéef li qawmi yatafakkaruun ñeel xeet boo xam ne dañuy nekk di xalaat mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu xéewal gëm ñu defal ci ñeenti bàyyuma yooyu mi ngi noonu doonte ne boo demoon ci arab yi tamit seen bokkaale yu bari ci foofu lañ ko doon jaare mi ngi noonu muy bahira saiba wasila am lu nekk ci façon shirk def nañ ko ci ci ci bàyyuma yooyu ala kulli xaal suñu borom moom lim ñu waxoon dama ko bind ñeel leen bind ko ñeel leen ngiree loolu yombalal leen seen nekk ci kaw suuf looloo tax ba jur googu daan leen gàddul seen bagage yóbbu leen ci dëkk boo xam ni bu doon yoon dong nga fa nar a demal seen bopp da ngay gis ni coono bu tara tar dana dal seen kaw te mbokk da ngay xool lu mel ni giléem giléem gars yi dañ koy sëf lu jege 500 kilos traversé de moom désert bi mi ngi noonu ñu jàng tuuti xam le trajet de sel ñi daan jóge ay Niger dem ay Makka jaar Soudan des centaines de kilomètres giléem mën na toog un mois du naan un mois mën na ko nekk ci désert bi du naan ñeme xiif ñeme coono fu ne mën na faa jaar montagne ya beeñ ya lépp giléem mën na ko gàddu ak la nga xam ne mooy ay bagage am loolu mi ngi noonu bokk na ca itamit suñu borom subhanahu wa taala lim ñu lim lim ñu wax ci loolu mu ne yàlla daf leen ñeewant ak ñeewant mooy ki am yërmande boo xam ne dara luy lor raxu ca lu ci bëri dañ koy askani yaay yi mi ngi noonu rafa amma rahma mën na nekk yërmande bu ànd ak lor waaye lor googu it yërmande la ngi mel ne rek tey bàyyi bu jël gonem gu am 6 ans yóbbu ca médecin na ko jongalal ma ko ki xamul lan mooy xek ma jong danaan wallaay ñaar yi ñoo soxor bàyyi big médecin bi xamul ku ci gën a soxor xoolu ko doog ndaw gi rek li ñuy ñuy dagg ki yëm bi rek waaye fekk ñoom yërëm ko moo tax loolu am sunu borom yàlla yit naka noonu bari na ak coono yu muy teg ci doomu aadama yi fekk na yaa xamul rek waaye yërmande la yaa xamul waaye yërmande la borom boobu nag wëlbati ko wax ñu ne moo ñu may fas ba ko fas ak nim taaroo moo ñu may bixaal bixaal mooy lan dañuy jël fas boole ko mbaam mbaam bi tëb fas bi bu ko defee fas bi day jur benn doom boo xam ne du fas du mbaam moom la ñuy wax baax la ñuule gis ngeen boo xoolee muy ëpp résistance muy ëpp euh, résistance ci dëgëraay fas muy ëpp résistance mbaam du gaaw a sonn mukk borom bi ne maa leen ko defal defal leen mbaam yi ci boppam ngir ngeen koy war ak di ak di ci taaroo loolu kon borom xam-xam yi dañu ne yàlla kat nee na moo ñu may an am giléem nag xar bëy pour ñu koy lekk gannaaw ba maa leen may fas mbaam ak bax la pour ngeen koy war kon ñu ne fas mbaam bax la kenn du ko war loolu la ëpp ci borom xam-xam yi dañuy wax loolu doonte ne nag ixtilaaf am na ci fas dëppoo nañ ne mbaam kenn du ko lekk bax la doomu fas ak mbaam kenn du ko lekk mais bu dee fas moom juyoo nañ ci yonent bi alei salaam daana tere ñu koy rey lu tax mooy booba ñoom fas bariwul woon ci monde arab buñ daan jihaat yi ki am fas bu ñuy séddoo bu ñuy jox gaa yi cent mille cent mille moom deux cent mille lañ koy jox comme dafa nekkoon nag luñ daan jihaate suñu borom yonent bi alei salaam tere woon ñu koy rey أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم suñu borom mu ne noon yi waajalal leen lu ngeen man ci kattan rawatina cavalerie mooy fas yu ñu tàggat loolu day tiital la nga xam ne mooy noonu yàlla yi waaye loolu mu tere woon ñu koy rey da ngay gis ay borom yi xam-xam ñoom dañoo jàpp ne pour ñu waajal jihaat la waaye firiwul ne lekk gi dafa xaraam looloo tax ba ñoom dañ ni mënees na ko lekk rawatina xadis boo xam ne rot na ci buxaari asma bint abi bakar bi ko gaa yi di wax naan fas dagan nam daganul mu laa yonente bi ne ba muy dund rey nañ benn fas ñun ñépp ñu lekk ca comme ñoom dañ ni sip nañ ñu koy rey ndax valeur am moo ëpp yàppam day gis rek borom fas yi seret yi seen fas yi lu ñu di mën a dural par mois boo ko reyee benn jour ngeen lekk ko ñaari fan donc loolu du xikma waaye nag firiwul ne dafa dafa xaraam waaye malheureusement comme ñun mazhab malik moo gën a siiw suñ gox yi fexeel ba yow sëñ càmm bul am ngénte mukk rey fas na gars yi kaay leen kaay leen kii mi ngi noonu Sénégal yi mu doon lekkal mukk fas naam waaye nag texte yu leer yi wañu ne aram na loolu amul am na lu ñuy nettali ci imam Shafii ñu ne benn bàyyi def na ko yow yaay daganal fas te pourtant suñu borom dani wal xayla wal bixaal wal xamir la tarkabuha wa zina yàlla mu ne ngeen koy fas li ci des ngeen koy lekk ngeen di ko war li ci des ngeen di ko taaroo te taar bi mbokk xam ngeen tey demal fii boo mën a dem demal commencer par Sénégal président de la République am na fas yu koy wër am déet défilé gis ngeen cavalier fas yi mooy li gën a rafet mi ngi noonu bu ñuy teeru gan fas yi ñooy koy teelu bunta pale te fas yonent bi alei salaam nee na yàlla def na ci moom yiw ba ilaa yumil qiyaama ba ilaa yumil qiyaama mu nekk taar loolu kon borom xam-xam yi foofu la ñeemele taar bi waaye ñu ne Shaafi na leen yàlla mu ne li tarkabuha wa zina taar bi jëkk mooy lekk ba suur ñu ne naa suñ caamil xam ngeen ci dara nit ki bu bu bu xiifee du taaru kon bala ngaa taaru da ngay lekk ba suur yaa ngi dégg almuhim daal ci gàttal nañu xam ne xaraam na mbaam dëppoo nañ ci bax la dëppoo nañ ca fas la ca gën a digg doomu rek ñu wax la imaamu Malik wax sit nañ ko waaye kenn du dogu ci na xaraam na mi ngi noonu borom bi nag ni mi ngi bind lu ngeen xamul mbokk looli la chaque ne doomu aadama yi ba suñ jamono yi tey nga xam ne yàlla may na doomu aadama xam-xam sunu maam yi buñ doon raam ñun dañuy naaw bi yàlla indee ordinateur doomu aadama day naaw ci xam-xam chaque année li ñuy découvrir kenn xamul nu mu toll waaye ba tey it ku ne xam ne ne ne espèce yi yàlla bind kenn mënu koo jeexal waaye bokk na lu borom xam-xam yi di wax yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamuun mi ngi bind lu ngeen xamul dana ci dugg oto train avion lu mu mën a doon na am mbokk julit oto yàlla ko bind waa ji xalaat oto mbindaa ko nu yàlla la yàlla ko xelal na ko demal ci suuf matière telle matière telle matière telle buñ ko composé dana mën a jur pièce telle pièce telle ak pièce telle buñ ko boolee dana mën a jur moteur telle soo jëlee sama ndox ma ma jëlee ci sama pétrole boole ko taal dana tàkk yàllaa ko xamal doomu aadama yi ba partout chaque année nga gis ay découverte yu am en France aux États-Unis un peu partout dans le monde ay xale yu am vingt cinq ans léeg-léeg ñooy xëy rek découvrir benn mbir te seen maam scientifique yaa nga fa xamuñu ko woon lu waral loolu mooy suñu borom moo xamal doomu aadama mi ngi noonu wa allama la yàlla mi insaan maa lam yaalam moo xamal doomu aadama loo xam ne doomu aadama xamu ko moo ko xamal ba pare jubal ko mi ngi noonu kon yàlla moo ñu war sëgal oto boo duggee sa oto waxal alhamdulillahi alladi saxara lana hada boo yégee sa avion waxal alhamdulilah li saxarana hada lu tax yaxluqu te yaxluqu te yaxluqu ñun lii lañ tombeel suñu doom yi la ñuy nar a tombeel yàlla ko xam yaxluqu yaxluqu ma la taalamun borom boobu nag ne xam leen ne yoon bi jub ci moom la jaar xale yi nekk primaire buñ leen di jàngal dañ leen di wax ñaari point bu ñu nekkee yoon bi gën a gàtt mooy yoon bi gën a jub ngi noonu diggante poté bi ak poté bi train bi dem direct moo gën a jóg waaye boo bëggee wiiri na lay day gën a gudd rek moo tax suñu borom ne qastu siba sabil yoon bi gën a jub yoon bi gën a mucc ayib mooy ñu ñu ñu jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara am naa ki nar a sonn ci àdduna mooy kiy bokkaale suñu borom mu ne min ha jair bokkaale kat yi ñoo jaar ci ñalli bi ñoo nar a nekk sonn àdduna gannaaw sonn alaxira borom bi nag ne bu ko ko neexoon mu jëbal ñëpp waaye loolu neexu ko lii xikmaam ci jaamam mooy lu dul nit ak jinne dalaa jubal yàlla jubal malaaka yi bàyyi may gàncax yi lu mu mën a doon yàlla da koo jubal nit ak jinne nag li ko ci neex da leen a may xel tëralal leen aw yoon ba pare may leen autonomie ne leen yéen lu leen neex def leen i amalu ma shi'tum en tout cas lii laa bëgg pay baa ngi nii àjjana la lii moom bëgguma ko pay baa ngi nii safara la may la xel ne la nag léegi demal boo jaaree ci fi mu bëgg nga xam ne mooy sa njëriñu àdduna ak àllaaxira soo ñuy dem àjjana soo jaar jëfandikoowul sa xel jaar ca réer réer ga soo ñuy dem safara li nga noonu ku dof yàlla tegu ko dara kon loolu la mu ne nag su ma neexoon jubal leen boole seen borom boobu subhanahu wa taala daal di waxit ne mooy ki nga xam ne moo wàcce ndox jëlee kaw asamaan wax nañu sànq ne moo bind asamaan moo bind suuf naam wax nañu jur gi mu ne nag maa wàcce ndox jëlee kaw asamaan ndox moom ngeen di ci naan mbokk doomu aadama gannaaw oxygène bii ngay noyyi xamal ne la doomu aadama gën a soxla mooy ndox bu muy naan ñi am yàlla nattoo ñuy gis ay nit ñu réer ci àll doomu aadama bu maree ba mar dana dem ba di futteeku def yaramu neen mi ngi noonu sànq sama benn waay bi mooy nettali gaa yu génne woon ci benn tool bu rëy bu siiw ci Sénégal dem nag réer biñ ñëwee fekk ko ci àll bi mi ngi mi ngi def yaramu neen di di di gat boobu mi ngi waaje dee ndax mar kon doomu aadama ndox mooy priorité des priorités boo amee ñaari soxla rek daa fekk ndox am mooy yàlla maa leen may lu ngeen di naan muy xéewal goo xam ne nii mbokk mi ngi noonu ndox yàlla moo koy créer ci kattanam mi ngi noonu soo demoon tey ci xale yi jàng tuuti ñu ne la la nga xam ne nii mooy hydrogène boo xam ne ni day ànd ak oxygène mooy booloo nekk ndox boo ko tàngalee tey mu teqali ko nekk vapeur loolu ci kattanu borom bi la subhanahu wa taala tous les scientifiques du monde réunis buñ dajewoon mën nañoo créer ndox xéewalug yàlla la maa leen may ndox ngeen naan maa leen may ndox moo xam ni danaa ci meññal àll bi garab yi ngeen commencé ci nag am nu ngeen di roccee ay xob yu ngeen di jox seen jur ngeen di naan ñu ñu koy dundee yaa ngi dégg yonent yàlla Muusa ba ko yàlla ne waaw suet bi loo koy doy mu ne atawakku alayha wa axoshu ala ghanami biha ala ghanami moom laay jël di dóor car yi ñuy wadd sama jur gi di lekk loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ni maa leen ci génneel ay garab yoo xam ne ca ngeen di xonte seeni jur nit mi ngi noonu aussi moon ci benn ndox bi borom bi mu ne ci laa leen génneel mbay azar dugub mboq ñebbe lu mën a doon yu génne pepp ya gannaaw ba même ndox bi ca laa leen génneel zaytuun mi ngi doon di olive di garab bu baax ñu koy mën a diwoo di ko mën a soose muy faj am njëriñ yu dul jeex zaytuun maa leen ci génneel tàndarma su ngeen wooree moom ngeen di dogee mooy fruit bi gën bu doomu aadama lekk ci kaw suuf ay njëriñam it kenn xamul nu mu toll garab ga ñu dëkk ak moom liñ ci jëriñoo kenn xamul mu toll à part à part fruit yi al ana muy raisin yii ngi màgg ba toll un mètre yii dem ba deux mètres yii dem ca kaw tàndarma ya yii tàllalu ci suuf yooyu yépp suñu boroom jàng nañ ko ci saar bi passé mu ne yusqa bi ma in wahid benn ndox dong moo koy arrosé yooyu yépp borom bi mu ne bépp façon meññeentit maa ko génn ci ndox moomee yow mi xalaat day war ngaa xalaat ci lii xalaat ci kattanu yàlla ne innahu ala kulli shay'in qadir mbokk benn suufe ngi nii yàlla wàcce benn ndox meññeent yi génne bii saf saf ak kaani lemo nga nii frox raisin ngi nii saf saf ak sukkar bee ngi nii bee ngi nii bee ngi nii amoon nañ benn màggum gàmmukat mu ne yàlla bu doon nita danaan xëy baykat yi waaj leen maa ngi taw tawu kaani ku ji kaani na ji kaani taw taw bu wax kat gaa yi ji kaani gannaaw ban mooy kaay yéen ñi bay xaal nag kaay leen maa ngi taw taw bu saf sukkar waaye gis ngeen mbokk suñu boroom benn ndox calam génne loolu lépp ñépp génn mu ne kuy xalaat war nga xalaat ci lii te booba mi ngi tontu yéefir yu bon yi nga xam ni dañ doon wax bu ñu dee lu ñuy dekkee suñu borom jël suuf wow koŋ soo demoon ci àll bi jamono ji jamono cooroon ji la ñuy dem ci àll bi di ko lokkot mooy bay ñeex mépp dajale ko taal ko ay sib tool bi wow koŋ bu suñu borom yàlla wàccee ndox façon meññeent bépp génn ci borom bi mu ne kuy xalaat ci lii day da nga xam ni yàlla bu diggee ne dana dekkal doomu aadama yi loole yow doo ci am benn sikka sàkka mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتشكروا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa saxara lakum al-layla wan-nahar moo leen tàggatal guddi ak bëccëg wa shamsa wal qamar moo leen tàggatal jant ak weer wa nujuumu musaxaraatun bi amri biddiw yi it day lu ñu tàggat lañu ci mbiram inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluun nekk na ci loolu day ay kawtee ñeel xeet boo xam ne dañuy xellu wa ma zaraa lakum fi l ardi muxtalifan alwaanu bokk na ci lam tasaare ñeel leen ci kaw suuf mu wuute lool ay couleuram ya inna fi dalik nekk na ci lii day la ayatan li qawmin yadhakkaruun kawtéef ñeel ñi nga xam ne dañuy fàttalikoo wa huwa alladi saxara al bahra yàlla mooy ka tàggat géej li taakulu minhu lahman tariya ngir ngeen cay lekk yàpp woo xam ne yàpp wu tooy lay doon wa tastaxrijuuna minhu xilyatan talbasuunaha ngeen di ca génnee ay takkaay yoo xam ne da ngeen koy sol wa taral fulka mawaaxira fiihi ngeen gis gaal yi ña ngay daw di xotti géej ga li daw mooy mawaaxir mooy na gaal ngay xottee ndox mi ñu dem fiihi ca géej ga wali tabtahu min fadli mu ngi leen ngeen fag ngeen faggu ca la nga xam ne mooy ay ngëneelam wala allakum tashkurun waaye it ngir ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di sant seen borom mi ngi noonu mbokk suñu borom moo ñuy wërsëgal guddeeg ba cëkk guddi di xéewalug yàlla ca mooy ci la doomu aadama yi di seetlu jant bi mooy dem laqu ca sowu guddi jot waaye bi yàlla may xalaat doomu aadama wan na ko ne ndekete suuf bi mooy wëlbatiku bu wëlbatikoo yow fi nga nekkee wan jant bi gannaaw nga nekk ci guddi gannaaw ba ñeen féeteeg moom nekk ci bëccëg comme tey waa Arabie Saoudite ñoom ñi ngi seen guddi ñun ñi ngi nii ñi ngi nekk suñu bëccëg loolu di xéewalug yàlla suñu borom mu ne su ma jëloon suuf nag fixé ko bëccëg rek am ba yowmal qiyaama kan mooy indi guddi kenn ca kon musiba am doomu aadama suñu borom dafa am lu mu def ci yow loo xam ne daa soxla guddi soxla bëccëg heure boo nekkoon ci benn ah climat boo xam ne nii dara amul fa lu dul guddi kese loolee bu yàggee di am ci yow jeexital muy xéewalu yàlla comme na mu koy waxee ci saar yu bëri ci alquran noonu la ñu tàggate la jant bi ak weer bi ni ñu leen ko waxee tey scientifique yi gëmul yàlla gëmuñu àllaaxira ñoom ñëpp dëppoo nañ ñi jant bi fi mu nekk rek la mënoon a nekk doomu aadama mën a dund ci kaw suuf su ko gënoon a kawe comme biddiw yi musiba am su ko gënoon a jege musiba am boo leen laa doon nag ñoom waaw le pourquoi loolu ñu ne laa c'est le hasard mi ngi noonu c'est le hasard waaw weer wi it ni mu ko ya ni mu ni ko yàlla placé foofu rek la bonoon a nekk doon satellite équilibré suuf si équilibré océan yi bu fi weer wi jóge woon vingt quatre heures catastrophe totale adduna yàqu waaw scientifique yi loolu nga xam ne foofu rek la mënoon a nekk lan moo ko def foofu hasard c'est le hasard mi ngi noonu c'est le hasard moo tax amoon nañ benn waxkat bu nekkoon Sénégal nee na dama dajeeg sama moromu sama mbokku philosophe lu ma ko laaj waaw lu lu waral lii mu ne ma hasard ma ne ko ah kon de hasard ci turu yàlla yi la waaw mi ngi noonu moom turu yàlla yi lañ ci boole hasard ala kulli xaal mbokk julit suñu borom mu ne moo ñu tàggatal biddiw yi mbokk biddiw yooyu borom bi wax nañu njëriñam li tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr gonek ndakaaru xamuñu loolu waaye boo demoon ci àll bi dañ naan la ñox baa nga ni ñoy bi buntu kër yu mbàkk yi dëlloon gi kaza kaza kaza tey jii boo ñëwoon guddi bëgg a dem ñëw di laajte waa man de dama Pikine laa bëggoon a dem guddi dañ naan la xoolal yaa gis buntu kër yu mbàkk bi mu ne waaw mu ne tegal sa jë ci buntu biddiw bi boo ko tegg ba dugg biir Pikine kii ñu ne la ngor laa bëggoon a jëm nga ne ko ak ngor ma di yaa ngi gis ñoy bi day mu ne waaw tekki sa sa jë doo wàcc lu dul nga dugg biir ngor nit ñi bu ñu ma saan nekk biir géej ci gaal yi ci lañu daan orienté woo ñi réer ci digg àll yi ci biddiw yi lañu daan orienté woo ci lañu daan xamee fu ñuy war a jaar ci lañu daan xamee fu guddi gu toll ñu ngi noonu amaa nag yow ñu dëkk Ndakaaru nga xam ne asamaan mën ngaa toog weer sax doo teen aw asamaan xamoo ci loolu dara waaye bokk loolu mooy xéewal gi ñu yàlla defal musaxaraatun bi amri borom bi nag ne lii day ay kawteef mi ngi ci ñeel ñi am xel te mooy képp ku am xel rek da ngay gis kaw ci fu yàlla ci loolu même bu la ab yonent waarut mi ngi noonu même bu la ab yonent waarut mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ak li yàlla tasaare ci kaw suuf ay melokaanam wóote li yàlla tasaare bokk na ci gàncax gi garab yi montagne yi laajal ko tukki laajal ko dem Italie laajal ko dem Makka laajal ko dem feneen bokk na la koy frappé mooy li ñu gis foofu ci garab yu musul gis ah ay montagne yu mus a gis ay façon ndox yu mus a gis loolu mbokk mi wañu ne suñu borom nim nekkee borom xikma la nekk borom taar waaye yàlla mooy artiste des artistes moo créé artistes yi am déet luy taaru rek yàllaa ko gën a xam taar loolu tax yonente bi alayhi salaam ne ajjana day fiha ma la aynun raat wala udnun samiat wala qatra ala qalbi bashar fiha ma tashtahihi al anfus wa talazzu al a'yun àjjana bët mosu koo gis nopp nopp mosu koo dégg xel mosu koo xalaat su ngeen ñëwee àdduna da ngeen fa fekk luy bànneexal seen bakkan yi waaye it di bànneexal seen bët yi toog àjjana di xool rek àjjana la ci boppam lay preuve bi mooy suñu borom mu ne xoolal ci kaw suuf gox boo dem fekk fa taar boo xam ne amul feneen muxtalifan alwaaru bu ko defee yow ñii fàttaliku ah lii day bokkul ak la ma daan gis sàngam bokkul ak la ma daan gis sàngam ila axiri yazakkaroon suñu borom yàlla jóge foofu nag dem ak ñun géej bi mu demee géej mu ne maa leen tàggatal baxar doonte ni baxar dañ koy wax géej waaye arab même ndox bu bëri da koy wax géej donc fleuve yi mag yépp dañ koy tudde géej mi nga noonu suñu borom mu ne maa leen koo tàggatal ngiree ngeen ci lekk ay jën yàpp boo xam ne yàpp bu tooy la mbokk xoolal tey xam leen ne mbokk Sénégal gi bokk na lu ñuy dundee lii fay sunu salaire yi di créer sunu autorité yooyu la ca gën a kawe mooy jën yi ñu yàlla wërsëgal bu dul deuxième di troisième position mi nga noonu Sénégal li muy exporté bu jën nekkul deuxième mooy troisième position ci li ñuy jural ay devises géej gi ndax sunu maam yee ko fa def jën yi ndax ñun ñoo leen di xont déedéet kattanug yàlla ah kërum Ndakaaru quatre-vingt-dix pour cent boo demee en suñ caam ceebu jën la ñuy lekk mi ngi noonu loolu kon yàlla moo ko def di xéewal gu rëy gum ñu defal ñu koy dundi di ko exporté di ci am ay milliards yu dul jeex loolee ngir ñu xam kattanug yàlla mën ko wéetal gannaaw bi it borom bi mu ne nii laa jëlee gaal yi di ci daw nga gis pétrolier yi nga gis porte avion yi di mën a jël lu jege cinq cent mille tonnes bato boo xam ne ay avion lañ ciy teg ay ay ay char de combat ay yu kenn xamul nga gis avion yi di daw di décoller di daw di atterrir ci kaw bato yi muy jógee Amérique ba dem fële nga xam ne mooy Inde loolee mbokk kan moo ko tàggat mooy suñu borom jàll waala ndax preuve baa ngi nii xam ngeen ni suuf bato du ci daw air bato du ci daw kan moo jël ndox def ko diggante suuf ak air woyeful comme air dëgërul comme suuf mbokk kooku suñu borom jalla wa ala la borom boobu nag subhanahu wa taala nee na maa leen may ci biir géej it li ngeen ci mën a génne ay perle lu mel ne ay lu'lu lu mel ne ay marjaan nga xam ni ay chaînes yu chére chére chére yoo xam ne millionnaires yi ñoo ko jëlee di ko takk lii lépp mu ne maa ngi leen ko defal ngiree ngeen doon bokk ci ñi nga xam ne dañ may sant sant yàlla mooy nga xam ne moom dong yooyu ñu koy jaamu sant yàlla mooy nga xam ne mbooli mi xiiwal ci moom dong la jógee sant yàlla mooy mbooli mi xiiwal yàlla yi nga delloo ko fu ko neex yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam ñu koy sant mi nga noonu Cheikh Ousmane ñu jël ci kii وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي سبيل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
jazakallahu xayra suñu borom mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya moo sànni ci kaw suuf ay montagne an tamida bikum ba montagne yooyu di bañ a jëng ak yéen di tasa ba suuf di bañ a jëng ak yéen di tasaaroo wa anhaaran moo tàggat ñeel leen ay dex wa subulan tàggat ñeel leen la nga xamee ne nii moom mooy ay yoon la'allakum tahtaduun ngir ngeen doon ñuy jub wa- di gindeeku wa alaamaat moo tàggat it mandarga ya wa bi najmi ci biddiw ya tamit hum yaxtaduun ci la ñuy jube afa man yaxluq moo ndax ki bind kaman laa yaxluq dana yem ak ki bindul dara afala tazakkaruun ma ndax yéen du ngeen doon ñuy fàttaliku wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuuha su ngeen doon lim xéewali yàlla du ngeen ko mën a peeg mukk inna allah la gafuru rahim sa borom yàlla day kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la wallahu yaalamu ma tusiruuna wa ma tuclinuun yàlla day xam na li ngeen di nëbb xam na li ngeen di biral di ko feeñal walazina yad'uuna min duni illah ñañuy woo nag ca duñu yàlla laa yaxluquuna shay'a ñoom bind ñu dara wa hum yuxlaquun ñoom sax dañ leen a bind amwaat ñu ci bëri dañoo dee xayru ahya nekkuñu ñuy dund wa ma yash'uruuna ayaanu yub'asuun te ñoom day yéeguñu xamuñu kañ lañ leen di dekkal ñu ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi dem ak ñun ci xéewal yi nee na moo wàcc ay montagne ci kaw suuf montagne yooyu nekk lu chaîne suuf nga xam ne day dem ba ci biir géej gi dëgëral suuf ba suuf du am benn tasaaroo gu muy tasaaroo bokk na lu scientifique yi di wax wallahu aalam ñu ne suuf dana daw cent sept mille kilomètres par heure suuf ni muy dawi di wër jant bi dana daw cent sept mille kilomètres par heure balaa boucle cycle bi ci trois cent soixante cinq jours yu teg tuuti loolee lay doon su ko defee bokkul ak nag la ñuy tourné di wër boppam pour guddeeg bëccëg di am loolu kon moo tax suñu borom dàcc ay montagne ba nga xamee ne nii du tasaaroo léeg-léeg ay tremblement de terre am fenn waaye du ñëpp a koy yëgandoo borom boobu kon moo ko def muy xéewal yu rëy mu ne it moo tàggat dex yi mbokk dëkk yu bari seen dund mi ngi aju ci dex yi jaar ci ñoom da ngay xool tey dex lu mel ni Niil bi jaar Égypte Soudan ak yu demee noonu nga xam ne dana jege 7000 kilomètres yoo xam ne Niil bi da koo traversé su ñëwee ndox mi muy indi ak suuf yi muy indaale ca la nit ñi di bayee ca la ñuy dundee mi ngi noonu nga dem fële ko Amérique du Nord fekk fa Amazon moom it presque jege na 7000 kilomètres ila axiri yooyu ay xéewal la yoo xam ne suñu borom yàlla moo ko defal doomu aadama mu leen di indil ndox bu neex di leen indil am mbay soo ñëwee fi mel ne Sénégal am nañ fi ay fleuve Fouta ak fleuve Gambie ak fleuve nangam nangam loo xamee tey boo demee Fouta lu bari ci nit ñi dex gi ci la ñuy naan dex gi ci la ñuy bay dex gi ci la ñuy fóot ci la ñuy def lu nekk loolu kattanu yàlla la yàlla tàggal ñu suba la da ngay gis àll yu daws fees delle ki garab yàlla xàll ci ay yoon yu nit ñiy jaar bal demal ci dëkki naar yi dëkki asiatique yi de manière générale nga xam ne dëkki montagne la da ngay gis montagne bu mën a dem ay cinq mille cinq kilomètres mën na ko dem suñu borom yàlla subhanahu wa taala day dem ba benn place rek mu xar ko xar ko génn ci yoon nit ñi jaar ci dem mi ngi noonu fi jaajan nit ñi jaar ci mo- diggante montagne yi dem noonu la ko yàlla defee di kawteef yoo xam ne mënul nekk hasard mënul nekk lu dul xéewalu yàlla mi ngi noonu borom bi ne lii maa ko def ngir ngeen di gindeeku di mën a dox ci kaw suuf di mën a dem maa leen defee ay alamat alamat mooy lu nekk ci àll yi soo demoon tey Cheikh Ousmane seen dëkk àll tel am nañ fa garab goo xam ne bu ñu ko tuddee ñëpp xam ko déeg boo xam ne bu ñu ko tuddee ñëpp xam ko tund woo xam ne bu ñu ko tuddee ñëpp xam ko noonu la amee ci dëkk naar yi partout ay alaamaat yoo xam ne nit ñi daan ci mën a gindi ko ci di xam benn mool nettali na ma lu yéeme nee na ma même ñoom biir géej dañ caa am alaamaat tey da ngay gis magul la buy yor gaal dañ naan gox sàngam ci biir géej gi suñ demee ñoom xàmmee nañ ndox mi dañ fay joxante ay rendez-vous bokk loolu kawteefu yàlla la moo leen defal alaamaat yu ngeen di mën mën a gindee ko ñu ngi noonu wa bi naj wa bi naj mi suñu borom yàlla mu ne maa def biddiw yi tamit ngeen ciy gindee ko ca mooy ni ñu ko waxe woon sànq borom bi it mu ne mi ngi bind lim bind ñeel leen waaw léegi nag ñi ngeen koy bokkaaleel moo ndax yow mi am xel ki nga xam ne moo bind ndax dañ ko yem yemelik ci bindul ci bindul dara ndax yéen du ngeen xalaat doomu aadama bi naan diw laa yaakaar diw lay jaamu kooku lan la bind moo tax borom bi weneen ay mu ne aruni maza xalaqa la- mi- min duni ah maza mi ngi noonu maza xalaqa allazina min duni hada xalqullah lii ngeen gis yëpp yàlla ko bind léegi nag ki ngeen ku ngeen yaakaar ci lu yàlla won leen ma nan la bind ba gaa yi tey jii nga xam ne nit ñi ku nekk am nga sëñ diw moo teg place su yàlla ma gaa yi kooku lan la bind lan lañ bind afa man yaxluq ka man laa yaxluq ndax ki bind dana yem ak ki nga xam ne bindul ma ndax doomu aadama yi du ngeen doon kuy xalaat suñu borom yàlla mu ne su ngeen doon lim samay xéewal du ngeen ko mën a peek na am mbokk julit waxuma xéewal yi la wër waaye scientifique yi tey dañ lay wax yow doomu aadama li yàllay def ci yow ci xéewal Euh, ci jamono at yi passé daa nañ wax doomu aadama bi am na cent milliards de cellules mais gëstu yu mujj yi dañ naan doomu aadama bu nekk am na lu jege cent milliards cent mille milliards de cellules cent mille milliards de cellules cellule mbindaa fan la bu yàlla def ci doomu aadama moom ngay commencé heure bu ndoxu ku góor ak ku jigéen daje dafay créer benn cellule cellule boobu après tas doon deux tas quatre huit mille deux mille un million deux millions di tas un milliard ba baa mu yegg ci cent mille milliards de cellules yu composé doomu aadama cellule bu nekk am na liggéey spécial booy liggéey ba dañ naan benn cellule bu doon tane dañ ko bëggoon a xamle am na film buñ ci tourné dañ koy agrandir ba mel ne dëkk ba toll ne Belgique ñu ne benn cellule li ci nekk ci information yi ci yàlla def mën nañ cee bind 400 livres de 400 pages ba baa nga ci am nag 100 mille milliards de cellules moo doomu aadama ndax mën na sant yàlla bu doon yàlla dala fee bàyyi 50 mille ans sa làmmiñ bii du du dagg ci alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah pendant 50 mille ans it mënoo sant xéewlu yàlla abadan abadan waxumaa nag yow nga génn ci yow di dem nag ci leneen in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mun leen matal santul yàlla looloo tax kenn gënul ñàkk fayda waa joo xam ne danaan la kaay sant la ma sumay xéewal yow xéewal yi yàlla dafa mënul ko sant da nga da nga dem di sant la kañ lay xéewalam ah dégg naa tukulóor yi am na nañ koy waxe ci tukulóor man folklore yi xawma ko ñu ne kiy jooy ay rangoon ay rangoon di ko siima di ko siima cereem ku ñëw di di ko ñaan ñeex mu ne la jooyal yëg de nga ñeex waaye mbokk doomu aadama xéewalu yàlla kenn mënu koo sant kon nañ leen santale leen ma samay xéewal wallaay ku ko ci wuy ji yaa ñàkk xam xéewalu yàlla kenn kenn mënu koo pecc kenn mënu koo sant laa tuxsuha léegi nag suñu borom nag tëjee ko ne inna allaha la ghafuru rahim ah yàlla mënu ñu la sant luy pexe yàlla mu ne def leen la ngeen man la ca des ma jéggal leen ko mbokk julli sant yàlla la koor naka noonu aj naka noonu moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam bu ma san pare ci cant gi gën a mag gu doomu aadama di sant muy julli mooy cant gi gën a mag gu doomu aadama di sant mooy bàyyi ay itam taxaw di julli su yeneen ci ma san julli ba pare lam koy tëje mooy lan day daal di toog ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mi ngi noonu sant leen ni ngeen man li ci des ma jéggal leen ko borom boobu nag ne xam leen ne yàlla day xam na li ngeen di wax ci suuf ak li ngeen di jëf ci suuf li ngeen di feeñal ci wax ak li ngeen di feeñal ci jëf lépp la yàlla yemale loolu it di mbir boo xam ne dana yaakaarloo doomu aadama dana tiitloo doomu aadama dana la yaakaar loo nga xam ne yàlla xam lépp kon bul ragal ku dul yàlla li ngay def bu ko kenn yëgul it yàlla yëg na ko baril say zikr say istafar say lu baax bu kenn yëgul it yàlla yëg na waaye it tamit da nga tiit ci xam ne it yàlla xam na say secret mi ngi noonu borom bi nag ni gis nga ñi ñuy woo ci duñu yàlla bind ñu dara bal ñoom sax dañ leen a bind bal ñoom dañ leen a bind mbokk muy nekk lu yéeme aaya yi day yéefir yaa taxoon muy wax waaye ñu dem ba ay julit di wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah di jàngal quran di taxaw taxawaayu yéeféer yi ngi noonu da ngay gis yaakaar naa bilal ci am fàttewul benn audio benn waay di wax man sëñ diw laay jaamu sëñ bu nekk Sénégal di bilal fàttaliku ko ko waaw diw laay jaamu yéenay bay yéenay bañ ko jaamu diw man ni diw laay jaamu laa wax lu yàlla am na jël soxla lu ma yàlla dara du padd lu man lu sëñ diw joxewul bëgguma ko lu yàlla am soxlawuma ko mi ngi noonu ah fii ci Sénégal njaay loolee mbokk da ngay gis ay musiba la yoo xam ne moo ñu dal waaye suñu borom mu ne ñooñu dañ leen di bind sëñ diw lu màgg màgg ci yow mënul romb yonent yàlla muhammad mënul romb jibril mënul romb mikail mbokk ñooñu ay jaami yàlla lañ yàlla mu leen bind ki nga xam ne dañ ko bind mooy kon moom mi ngi noonu loxoom tànkam bëtam lu mu mën a doon moom dara la ci defut yàlla ko bind moom ci boppam kon nga xam ne kii ab jaam la soo ko bëggee yaakaar nu ñuy sottee laay suñ borom moo tax mu ni da ngay gis ne ñooñu nit lañ ñoo xam ne ñu dee lañu ku dee mooy xamoo dëgg xamoo ruu xamoo jub moo tax borom bi ne laaj leen ana kan ci ñoom moo xam kañ la bisu penc di ñëw boo ko bisu penc bi ngi ñëw benn sëkk amu ci secret la boo xam ne yàlla moo ngi ko denc xamulu ko malaaka xamulu ko yonent xamulu ko kenn loolu pour wane ne moom rek mooy yàlla bi nga xam ne moom lañu war a jaamu lu war loolu ndax bis boobu ñu jëm moom dong moo fay am ndigal moom dong moo fay joxe xéewal moom dong moo fay joxe ay mbugal ñeel ko ko soob mi ngi noonu mbokk julit yal nañu boole ci jaamam yi ko gëm bañ koo bokkaale dara boole ñu ci jaamam yi koy sant adduna ak alaxira boole ñu ci jaamam yi muy teral adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli haal kii day laaj naan ndax dana dagan ñu boole mbaam pour mu dem tëb fas non loolu dana dagan yonent bi alayhi salaam amoon na benn berkelle benn fas ak mbaam bu mu tudde woon dol dol loolu da ngay gis ne lu dagan la ci bàyyi ma yi buñ jàppee ne buñ leen tëbalee dana mën a am croisé ca xikma nekk ca loolu islam nekkul luy bañ loolu wallahu subhanahu wa taala alam mbokk bi di laaj ci lu jóge ci internet bi moo koo xam ne nii dafay wax ne moom ndax zakka bi mu génnee mën na ko yóbbu ca jàkka ja ñu tabaxa ca jàkka loolee mbokk borom xam-xam yi gisuñu loolu maadaama am na ñu ko yeyoo ñooñu ko yeyoo lañ koy jox borom alal yi nañ génne beneen xaalis tabaxe ko la nga xamee ni nii moom mooy seen jàkka loolu daal la ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañ wax mooy fi sabilillah booy luñ ko nee ne dañ ciy bale al surubaat rawatina jàkk yooyee amma suñu demoon ba nga nekk gox boo xamee ne nii gisuñu ko ko aajowoo te loolu jafe na suñu jamonoy tey ca jàkka ji soxla woo ko mënees na ko jox jàkka ji waaye daal tànk ñi ko aajowoo ñu ngi nii toog ñoom la yàlla tudd nañ leen ko jox kii laaj mu ne ndax sama soxna bi ëmb mën naa ko génneel zakatul fitre waaw loolu de am na ci lenn lu ñuy askane ne Ousmane daana ko wax waaye nag jumhurul ulama ñoom waxuñu loolu ñoom dañ ni ki nga xamee ne nii moom la zakatul fitre war mooy ki nga xam ni bi weer wi feeñee juddu na ki nga xam ne weer wi feeñee juddu na ku mel noonu dañ ko war a génneel zakatul fitre waaye ki nekk ci biiru yaayam kenn du ko génneel zakatul fitre soo ko defee nag jublu ci sarax boo koy génneel rek loolu filla alhamdu lu baax la ku coobarewu lu baax loolu day yàlla dana ko ko bindal man tatawaa xayran fa huwa xayrun la amma ki yor ay jàpp ne ay cheytaan ne dafa nekk ana yan ñaan lañ koy digal ala kulli xaal mbokk julit nañ xam ne islam am na lu ñu tudde muawizaat muawizaat yi qul huwallahu ahad la qul udr bil falaq qul udr bin nas soo jàppee ne ay cheytaan da lay dikkal te du ku jàpp ne ay cheytaan di koy dikkal rek fekk cheytaan yi du koy dikkal léegi-léegi da ngay am feebar naturel fa nga jëkk a dajal mu ne laa yow da ngaa yore rab bu ko defee tee perturbé loolu bu ko defee ñi ngi lay jëkk a ñaax lu la jaaxal ci sa yaram demel ci médecin yi ba médecin yi tëli mais ala kulli xaal boo yëgee ni xëy na am na cheytaan yu nekk ci yow sa xool foo jullee ba pare taaril qul huwallahu ahad qul huwal falaq qul huwal nas loolu yeneen ti moo ko déglee ci ñëpp fexeel ba it timis nga tari ko ñetti yoon bu nekk fajar tari ko ñetti yoon bu nekk booy tëdd ëffal sa loxo nga tari ko ñetti yo nga tari ko bu nekk benn yoon raay sa yaram defaat ko ñaareelu yoon defaat ko ñetteelu yoon lii day boo ko boolee ak la nga xam ne mooy ayatul kursi nga saxal di ko tari gannaaw julli di ko tari booy tëdd sax ci auzu billahi min ashaytani rajim lii moo gën a nekk garantie gën a nekk assurance ci li nga xam ne xew na tey li xew tey mooy 30 ans yi wala 20 ans yi li ñuy dund koñ boo gis am na lu ñuy tudde coranothérapie ay gars yi nekk fanaan dañuy mocc di nodd di yuuxu di laaj nit ñi ay 100 mille ay 150 mille ñu nekk seeni prisonnier yëg naa ci ay mbir yu grave yu doy waar ala kulli xaal ñi ngi ñaan daal xam ne mbokk julit ay ruqiya lu mën a sax la su dee waaju koy def yàlla tax mu koy def jullu ci jëriñ mais ruqiya yi xew nii léegi moom li may digal nit ñi buñ ko mënee moytu ñu moytu ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw bismillah waaw kon ñu xam naa mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatulah barakatuh القرآن من وقع من ديال أيوب أن تقول برجلك هذا مغتسل بارد وشراب waaw léegi sharab boobu dañ koy jàppee ndox mu tàng wala ndox mu sedd
hada muxtasalun baridun wa sharab suñu borom da ko wax ne lii am ndox la moo xam ni bu ñuy sangoo la bu sedd ak naan bu ñuy naan kon ci même ndox mu sedd moom i la ko borom bi génneel ne ko naan ci sangu ci li nga noonu naan ci sangu ci te ba suñ jamonoy tey amul benn dermatologue mooy ñiy faj wàllu der lu dul boo demee dana la booleel ñaar looy naan mu rey feebar bi ci biir ak looy diwoo mu rey ko ci kaw loolu nag alquran waxoon na ko depuis démb hada muxtasarun barid wa sharab mooy lii ndox la buñ la génneel muy ndox bu sedd na na nga ci sangu gannaaw ba nga naan ci bi ci ayuba sangoo naan ci feebar ba yépp daal di teqaliku ak moom mbokk kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain